alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilah ala kulli xaal min axwaali al jamaali wal jalaal. wa kullu tajalliyaatihi tajalliyaatu kamaal huwa almutafarridu bilbaqaa'i walxuluud wa gayruhu faanin mafquud kayfa kaana min alwujuud subhaanahu wa tacaala wujuuduhu xaqiiqiyun wa wujuudu alkawni majaaziyun maxduud naxmaduhu wa nashkuruhu wa laa yuxmadu calaa makruhin siwaah jalla jalaaluhu wa azza sanaa wassalaatu wassalaamu ala man bayyana lana sabiila alhudaa wa saara bina alayh wa bayyana lana maslaka arradaa wa haada bina an wa daana ila alimaani waltawxid waltafriidi waltajriid sayyidina wa xabibina wa nabiyina wa mawlaana muhammadin alamin alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabiahum bi ihsanin ila yaum ddin wa baad ببالغ الحزن والأساء تلقينا نعي السيدة الفاضلة الزكية الطاهرة المثلى الحافظة العابدة الذاكرة الزاهدة الولية العارفة التقية النقية سيدتنا ومولاتنا أم الأئمة الأعلام وبضعة سعادة الأنام وحليلة الخليفة الهمام السيدة الحاجة فاطمة الزهراء بنت شيخ الإسلام مولانا الشيخ الحاج إبراهيم نياس الكولخي التجاني رضي الله عنهما ونفعنا ببركاتها ببركاتهما توفيت ليلة الثلاثاء التاسع من ذي القعدة الحرام 1441 هجرية الموافق 30 يونيو 2020 ميلادية بمدينة كولخ عن عمر يقارب المئة لأنها ولدت بالتاريخ الهجري 1343 بالتاريخ ميلادي ألف وتسعمائة وأربعة وعشرين وعمرها بالأعوام الهجرية ست وتسعون عاما على رمز أحرف كلمة مولي وأما بالسنوات الميلادية فعمرها ثمانية وتسعون سنة على رمز أحرف محمود تغمدها الله في رحمته وأسكنها فسيح جناته في روح وريحان ونعيم وغفران وفضل ورضوان بجوار والدها في برزق شيخنا الختم التجاني رضي الله عنه عند مقر النبي العدناني صلى الله عليه وسلم في على الفردوس ونزف تعازينا الحارة إلى حضرة الخليفة سيدي الشيخ أحمد التجاني رب النجلي شيخ الإسلام مولانا الحاج إبراهيم نياس الدولة التجاني رضي الله عنه وإلى كافة أفراد الآعلة النياسينية الكريمة وعائلة السيسي بارك الله في الجميع وكذلك نعزي جميع أصحاب الشيخ إبراهيم رضي الله عنه وجميع أهل الطريقة التجانية المباركة وخاصة wa jamiica almuslimiina caama wa inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun allahuma agfir laha warxamha wa askinha fasiixa jannatik ya rabb alcaalamiin axuukum wa muxibukum cala addawaam abu bakrin ibnu ibrahim ba tijaani latafa allah bi amin mbokk yu tedd yi ahlu safa walwafa maa ngi ñëpp di leen ziyaara di waxaat inna lillahi wa inna ilayhi ci tiisu réew yi nga xam ne dal na tey ci al umma al bi dal ci al tariqatu tijaaniya dal ci réewi Sénégal dal Medina Baye dal ci kër cheikh al Mawlana Alxaaji Ibrahim Niass dal ci kër maam Alxaaji Abdoulaye Niass radiyallahu anhuma mu di génn àdduna soxna su tedd soxna su baax soxna su mokkal alquran yéeme lool ak mokkal soxna su mën a zikkar soxna su mën a jaamu yàlla soxna su dëddu àdduna soxna su tabe soxna soo xam ne su yaatula soxna su ufoon ñëpp soxna soo xam ne mooy yaay mboolem taalibe yi bàyyi e, di jigéen ju ràññiku ci mbaax ba sax ñi bind ci jigéeni tijaan yu baax yi ci maas gi ñu doon dund boole nañ ko ci téere boobu ñu wax ni saaun tijaaniyaat fa tabaarakallah e, moom muy sayda fatimatu zahra ñees mi nga xam ne mooy taawi Mawlana Cheikh al Islam Alxaaji Ibrahima Ñees bu jigéen moo génn àdduna biig ci talaata ji ci wàlli onze ci guddi génn àdduna goo xam ne itam gannaaw fan wu gudd la ndax moom yàlla defal na ko jege na téeméeri at ndax bu dee ci ati gàddaay gi mu ngi juddu mille trois cent quarante euh, bu boobaa ci wàllu googu euh, dana am mu ngi ko jeexal ci topp yàlla ak jaamu yàlla ak liggéey lu baax loolu la ko yàlla defal moom sunu yaay ju baax jooju di sayda fatimatu zahra bint cheikh al islaam moolaana alxaaji ibrahim ñas yàlla may na ko yit wàccaayam ñu ko fekkee wax nañu ne yàlla sonalu ko ci dara bi dara desutee lu dut mu wuy ji boroomam daanaka matul sax fukki minit ak juróom ci la def lépp lu mu war a def wuy ji boroomam gu sedd guy ñu yaakaaral ko bu baax a baax texe yaakaaral ko itam dégg nga mucc ca fa mu jëm kon kooku moo ñu dëddu biig ci talaata ji ci guddi eh, incha allah danañ ko jébbal boroomam ëllëg ca Medina Baye ci ndigalal xalifa bi ak ndigalal doomam imaamu ratib sunu soppe saydi cheikh ahmad tijaani bu saydi ali sise radiallahu anhu eh, ak feggoog rakkam sunu beneen soppe di annatiqu rasmi porte parole kër gi muy cheikh Mouhamed Mahi Cissé ñu leen koy jaale ñoom ñëpp di ko jaale xalifa bi seydi cheikh Ahmed Tijani ak mbooleemi rakkam ak mbooleem jobootu cheikh al islam Mawlana Alxaaji Ibrahim Ñas góor ak jigéen euh, sët yi ak sëtaat yi ak jarbaat yi ñoom ñu leen di jaale. Eh, sunu yaay fatimatu zahra sunu yaay sunu maam fatimatu zahra ñaas eh, di ko jaale itam eh, sunu sëriñ bu tedd boobu di imaam cheikh ahmad tijaani di ko jaale cheikh mouhamadul maahi Cissé di ko jaale mboolem seen ay njaboot di ko jaale njabootu Seyda Umu Cissé ca Mauritanie jaale njabootu dégg nga euh, euh, mbooleem daal njabootam yëpp ñu nga xamante ne ni Seyda Ndeye Cissé di ko jaale njabootu Seyda Ndeye Cissé yëpp tabaarakallah bàyyiwuñu kenn euh, di ñaan yàlla yàlla yàlla taas ci barkeem yàlla nañ yàlla taas ci barkeem moom Seyda Fatimatu Zahra moom ñes moo wuy ji tey aywa mu nekk ne Medina Baye ñu ngi ci tënj gu rëy tey ñu ngi ci naqar tiis ndax euh, wax dëgg yàlla moom desit la woon ci baqiyatu salafi saalih ñu ko daan xoole sëriñ Ali di ko xoole maam sëriñ Mbay di ko xoole Baye Alxaaji Muhammad Zeynab di ko xoole macha allah dégg nga sëriñ Ousmane Ndiaye di ko xoolee waa maam Cheikh Omar Touré di ko xoolee eh, Thierno Hassan Dem ñoom di ko xoolee Baye Malle Thiam di ko xoolee Baye Ahmadou Thiam ñoom di ko xoole eh, mag rakkam ju baax ji alxaaji Abdullahi Ibrahim di ko xoolee sëriñ Daam fa tabaarakallah di ko xoolee mboolem xadra pay bi ndax ñii ñëpp dund na ak ñoom ñu ci bari itam maanaa euh, jëflante na ak ñoom jëflante yu rafet yoo xam ne waa pays bi yëpp seddeel nañu ko mbaaxam dippi ci jamonoy ndawam ba ni mu nekke mag mënatut waaye nag doy na ci moom seede bi nga xam ne bàyyi seedeeloon na ko sëriñ Ali radiyallahu anhu ne ko kii ma la jox nag eh, man du ma wax luy deñ waaye maa ngi lay xamal ne kii ma la dénk mu ngi bokk ci saalixaat yi te bu yàggee da nga xam ne ci saalixaat yi la bokk loolu Maulana Cheikh Ibrahim waxoon nag dëgg-dëgg xamuñu sax eh, dëgg-dëgg wax ji la mu undu waaye daal bu ñu xoolee nit ki bu ñu ne alwaladu min kasbi walidayhi doom fàggu ñaari wayjuram la te wayjur wu góor wa am na ca cër waaye wayjur wu jigéen wa it am na ca cër bu rëy ñu xool njobootam gi nga xam ne tey yàlla may na may na ko may na ko ko boobaa dinañ xam ne ku nekkut saaliha ba yegg ci dayob salaax doo mën a meññ eh, njaboot gu mel noonu eh, doy na ci rek sayidi wa mawlaaya al imam xasan Cissé radiallahu anhu ñi nga xam ne eh, aw turam daj na àdduna bi yëpp ci liggéey bu sell mu liggéey tasaare lislaam tasaare tariqa tijaaniya ànd ak fayda bi tasaare xam-xam tasaare mbaax eh, ci goxi àdduna bi yëpp moom imaam Xasan eh, kooku di waajuram bu jigéen sikk amul ne saalixa la waaye bato dem bato costé imaam Xasan génnee àdduna ñëpp jooy ñëpp jaaxle ñëpp tiit waaye bi imaam Cheikh Tidiane nii fi ne yal fi yàgg te wér te am jàmm ak kaaraange bi mu toogee ci xilaafa gi maanaa ci jumaa ji yore ko wax dëgg yàlla dafa ñëwaat euh, nekkaat dégg nga buñ doon wax benn xasanu may léegi dañoo xasanaani moo ko imaam xasan moomu xasa mooy lu rafet waaye bi mu ñëwee moom nekkatul benn bu rafet mais ñaar yu rafet moo nekk ci suñ kanam muy alxasanaani mu mel ni fàtteloo nañu sax dégg nga imaam xasan ndax dafa ñëwaat di moom wala sax macha allah fa tabaarakallaahu lépp lu mu taxawe woon mu taxawe ko mot ko sëkk ak barke yàlla yit may ko ndam uh, yu bëree bëri sottee ci jamonoom yu bëree bari dégg nga yokkoo ci jamonoom moom imaam Cheikh Tidiane Ali Cissé ñu koy ñaanal yàlla gudd fan lool ak wér yal na dem ba ëpp wayjuram wu jigéen wi la ay bu ko defee ñuy ñaanalit ñu mu bàyyi ñu fi itam boroom xam-xam bu mag bi nit ku jub ku baax ku sell ki boroom xel mu rafet mile fa tabaarakallah di koo xam ne mag ñëpp a ko ndaw ñu wóolu ko fayda bi yëpp wóolu ko tariqa bi wóolu ko mu siq ak jàmm muy cheikh mahamadul maahi Cissé kon vraiment euh, ak seeni nag doom seeni sët sëtam yu jigéen doomam yu jigéen seeni doom ñu nekk ay weer nekk ay jant ci diine ji ak ci tariqa bi fu ñu mën a ne ci réew meeg bi ci réew ñii ca Mauritanie ñii ci Angleterre ñii feneen ak feneen yooyu yëpp nag di ay tegtal yuy wone ne kon mbaax googa sunu sëriñ bi Mawlana Cheikh Ibrahim waxoon ci moom euh, feeñ na ci ngirteem yal na yàlla dolli leen barke euh, seen ñu fàtte dog bi daan def seen waaw fukki fatiha fukki ayatal kursi fukki lixlaas ak benn fukki salaatul fatih ñu hadiyal ko soxna si incha allahu loolu daal maa ngi koy jottali jëme ko ci mboolam mbokki taalibe yi Eh, di balu àq ñëpp seen mbokk mu doyadi mu xeebu Aboubacar Ba at-Tijaani assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.